Mor jot na boru Baye Ali jot na Baye Ali dafa nekk di gërëm ak jarbaagam Mor xobar xobar Mor jot na boru Baye Ali jot na Baye Ali dafa nekk di gërëm ak jarbaagam Mor xobar xobar koor jot na añol mu ndaw foo doon nii marché Ah, ndeysaan ku la yónni marché yow yaa aay lan aay ñoom na waay waay bu ma pièce waay yow da ngay toog yow ñoom mu daw ak sa ah ah kon ne yow tey war war ngaa mën a ah doguloon yaa si ginnaaw ah ñoom mu ndaw yow yaa ngi dalal sama xel mi de dala jël Serigne Samba Diaw yow bu fekkee mën nga togg moom tey bu ma neenee ba pare dangay sëy moo dinaa ñëw day saan eh man na nag non mu ndaw xam naa ni moom bu fekkee moom naxuma moom man na moom day sëy noonu demal nag da ngay yow moom di nga sëy tee te te te te te ay ah, waay jërëm jaay moom pare na leen def ñu ci jàmm waaw tey bi ñu mën la jaawantali. waaw damay jënd nii quoi dama waaw boo jënd. waaw man de daa am ku may invité ndogu fii. ndogu. waaw yow nga fi ñëw bay xamante ay nit ba lay invité. sama njool mu ndaw mi kat moo may invité ceebu ginaar. comme que kat mu ndaw mi. ah ni jaay nga baal ma kat. Mor Mor damaa bëgg nga déglu ma xel. Mor fii Dakar la. Mhm. nekkul fu nekk rek ngay def bii. fii Dakar la de. nekkul dëkk ba de. waaye Nidia Seck xam nga lan la boo gisee may dem man euh, ceebu keccax yi ceebu ginaar ceebu ginaar xam nga du benn te fay man ceebu keccax rek laa fiy lekk man Nidia man daal damaa. moom la ñoo. ak ceebu ñebe. moom la man bàyyi ma tey moom ceebu ginaar. dëkk ba dëkk ba loolu lekk siim cere. waaw mais damaa ñëw Dakar Dakar fa may lekk ginaar. boo xoolee ceebu keccax jëloon. mënumaa lekk dëkk ba ceele siim ceebu keccax ñëw fii di lekk ceele siim ceebu keccax foo ma changé kilo. kon baax na man daal xamal naa ne fii Ndakaaru la li ma lay xamal xamal naa la ko ba pare. Ah. la li ma lay wax wax naa la ko ba pare. kon baax na demal bisimilah. bu leen ma sonal ndox fa laay ndox. te xamal da ngay dem nii. aywa damay dem kay. ma ko mu dem waaw baax na. naa jëru ko ma ko mu dem. waaw ma mu dem. daa fàtte ne la. baax na. xam nga nit moom boo xamul balaa ngay xam xamadi faw laa rey waaye bàyyi ko rek comme que a ñëw bëgg moom koñ bi moo xam ndegam ñëw na rek moom nag moom na koñ gi léegi kenn kenn du wax nii loo wax mu rab bi dagg ay waa ji la teel a. jam moor moor. ay waa ji ay waa sama bi baax waaw eh eh. damay bëgg a waaw damay bëgg a jox mi nii. ay waa sama bi baax moor eh. bu gaañ sa bopp. eh lan la moor. sama bi baax yi métti woo. lu ma la waxoon lii yëpp waxoon naa la ko newoon naa la fii Ndakaaru la du foo jot nga lekk. Mor da ngaa dëgër bopp. salaamaaleykum maaleykum salaam nga ne da ngay def kër jàmm. da ndox li kër jàmm da nga koo xam. ah. man ngeen tey tuuti bu leen tam doon jàmm ndax kii kat mën naa dem lekk kër jàmm waaye nag. woo fekk naan indi ma sa sala bi. indi ma sa sala bi ma ñaan. bàyyi leen di tam. indi ma sa sala bi. bàyyi leen di tam ne tam baaxul. loolu araam la. waaw naa ko naa ko rek ah, naa ko rek. ma sama nii rek. ay maa ngi dee waay. wooy maa defal nag Mor. ay waay Mor. Mor. ah kàddu ah, ah. gi fu ma koy waxee. kii dina ma dëgër bopp. Ah. masa jógal. maa xam ana yow ana man. jógal jógal bàyyi leen tam baaxul loolu dafa araam ah, moom rawatina nag weeru koor gi ñu nekk nii Mor Mor lan laa la waxoon Mor lan maa bëgg gàcceel Mor lan laa la waxoon fii Dakar la du foo jot nga lekk sëñ bàyyi leen tam nit ki kii dafa lekk rek kër jàmbur waaye du loo tey moo ko indi lii waaw imaam dinaa damaa lan moo lan nga lekk waaw dàq sa lépp. léegi loolu naka la nga def. waaw waaw. mooy génne fi. waaw. damaa ma yegg kër Ndiol mu ndax. donc damaa fekk ci yoon bi fii côté marché gànnaaw ci tamit. ma jël foofu ma daal mango ma ñaanal ko. wala mu di. xam nga ne màdd ak mango. surtout maa ngi lay sax si ceeb bi ah màdd ak mango. ceeb bi dinaa sax li ma si nekk loolu. ma ne la. moo kenn du ko ndogu ci taamu mooy lu tàng cër ah mais moo bëgg a dog ba rey sa bopp ah yàlla suñu borom tëgg la ko xam nga ni li caalit naa ba ba wax fi loo xamante ne yàlla ma ko yàlla en tout cas man kay xaaral ma jóg julli ñaan rax te jégalu suñu borom. ma ne caalit noo nga fii. ma ne ma yéen a ngi def doy waar. waaw lii nag bàyyi leen ci xel bu baax ndax ak dëkkandoo dafa am si doomu imaam li nga wax lépp dëgg la. waaye imaam dafa sa jarbaat bu jógee dëkk ñëw fii ci yow bi muy dem lii yëpp wax naa ko waaye bu ñëwee ñëw beneen melokaan boo xamante ne xamoo ko. da ngay caale imam. waaye loo saal moom dëgg wóor pëng la. moom kat damay ñëw sa ci fee lay jàpp. dëgg la julli ñaari rax. jéggu sa borom jéggu sa borom loolu la. kon nag man maa ngi ñu may la ndox. ñu may la ndox. jërëjëf dafa naan tane dinañ la may ndox. Baye